seen mbokk Alxaaji Modou Cissé moo fas yéene nii waat ak yéen si jotaayu Wadduha di leen ñaan ngeen continuer di abonné bu ànd ak dogalu yàlla incha allah yeneen na ngi ñëw si kanam di sant yàlla bu baax nag di julli si sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax di julli si sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa àddina bi yépp macha allah di ndokel tamit sunu équipe nationale bi nga xam ne moo doon def jongante final tey ak euh, Algérie fa tabarakallah yàlla dogaloon na di diiran Coupe d'Afrique bi dañ ne sunu kàddu dunu ko si jëme loo tax mooy di faral di gis yoo xam ne jàpp na ne du ngëneel du ngëneel si équipe bi du ngëneel it si réew mi te muy mbir yoo xam ne yépp day dellu si bañ a jox yàlla cëram gëm nañ ñaan nax loolu la ñu liggéey te borom benn ud'uuni astajib lakum gëm nañ sarax ndax dañ koy digle dañ koy def wante baatu ñaan ñaan la tudd kay ñaan nag lami ñaan yoru ko jàpp na kon bu saa senegal Sénégal yëngatu ba ñépp am si moom yaakaar ay junniy junniy vidéo ngay gis si ku nekk ne maa yor mbir yi suñu ñëwee si man lépp dana dox tuutee tey nu gañe coupe ren noo yor coupe dana ñëw xam nga kay dogu ne coupe bi dana ñëw te ab te des na ay waxtu wala ay fan wala ay semaine ngir fa ma jeex moom mu am dëgër fitu si ne lii dana am loolu yàggoon naa wax waxoon naa daaw si coup de monde bi ne état Sénégal war nay jël ay mesures si équipe nationale képp kuy sénégalais da nga si am cër ba kuy dogooti wala ngay wax nga bañ ko jëmee si loo xam ne réew mi yépp noo ko bokk dinaa di wax ne bu doon ku si wax dara nu convoqué la. wala nu artu la wallahi xale yi kenn gënu leen bëgg a gañe tey jom kese kese kese lan wante yàlla day wane ne moom mooy yàlla ki ñàkk solo ni Modou Cissé bari tooñ lool mënalul boppam dara soo amee fitu toog ne nangam mooy am garante naa ko su ko waxee keneen ak keneen ak keneen toppatoo toppandoo ko sa yàlla dina am faydaay toroxal leen te it firawna laxnatullahi ba mu waxe woon maa xalimtu lakum min ilahin xayri yi ana rabbukumul axla man maay yàlla bi gën a kawe booba mag naan beneen yàllaa ngi fi ba mu demee dem ba ne maa xalimtu lakum min ilahin xayri yàlla woon na ko ne moom mooy yàlla noonu nag ba ilaa yow mi yóbbu xasuun feeg jox yàlla li mu moom feeg defu yàlla di yàlla ñaanu tuddee ko ñaan nii rek lay demee mooy tax fawat nu jàppale peuple Sénégal nga xam ne macha allah xelal yi mag yi jigéen ñi góor ñi tey koo gisoon rek yitteem yépp mu ngi ko defoon ci football bi yàlla ñëw ak coobareem ña dog woon kon ak ña digge woon kon war na noo seetaat seen bopp war nañ see jàngee tamit waaye may gën di dénk li nga xam ne réew mépp ko bokk muy équipe nationale lu si nit di waxati fa tabarakalaa li ñu wax offense deta loi boobu war na am si équipe bi ngir lii nga xam ne sénégalais yu bari bëgg nañ ko te mooy am ndam yàlla mën leen faa gën a àggale ndax ñi nu dajeel mënunu leen waaye lu tax yàlla ànd ak ñoom loolu wax ne su ñooy fubal dañ ne ak onze la ñu ni fubal yi nuy ay nuy ay jullit ñoom nuy ay jullit seen population ëpp quarante millions ñun foog naa àggunu seize millions fa la ñoom nuy ñaan ñun na ñun nuy ñaan te ñaan lañu wax waxunu yor mbir yi mbir yi ku yoroon fa tabarak la nan xam ne yàlla yàlla yàlla yi dana maye wallahi ñaan la liggéey teraanga bu nu mën a am si allahuma lanu ko amee waaye dañuy jox lépp lépp lépp ki nga xam ne mooy lépp te mooy jalla jalaaluhu dinaa di wax ne saraxu quart de finale saraxu demi finale saraxu finale boole koog di dogu sarax lu am la wante sarax lan la sarax secret la kii sarax code la code nag defe naa ñiy digle sarax ñëpp koo si demoon nag ko jox ma sa kotu kantu sa kotu kartu bancaire du la ko jox lu tax ndax day xam ne loolu du lu ni siiwal kon kuy saraxe te muy code lang say def lépp nga si ut lu lay jariñ warul la doon loo xam ne àddina bépp koy partasé kon fa barak la saraxu nangam baa ngi nii lii sunu ko defee nangam sunu ma seet seen nangam loolu lépp fa tabarakallaa euh, nan koy maytu gën a maytu dog bi nag coupe bi day ñëw te ña fa bale woon ñëpp doon vingt quatre équipes ku si nekk ba ngay jóge seen réew sa njiitu réew daf la jox drapeau nga tànn euh, ka ngay dénk équipe ka nga koy dénki tànn ñam yaakaar ne ñi mënal nan ko indil ndam yàlla di dogal yàlla di dogal yàlla di dogal ba mu des ñaar fa tabarakallah nan sant yalla si limunumai, munu may waye nan si jange bu baax gëna jange sax lay wax ndax at mu nek rek su campagne su lu melni amé ñu si bëree bëree bëree bëri dinañ tooñ seen bopp tooñaare réew mi si wax lo xamné bi du sen domaine si wax lo xamné bi alalu yalla la yalla moko mo kon fa tabarakallah ku si saraxeti man nga def sarax te kenn du yek fa tabarakallah kuy ñaanit man nga ñaan te kenn du yek soo gisee mbiru football ak làmb may néew lu ma koy waxtaane lii rek la fa tabarak la ndax lu si génn rek dan koy moomale nit yenn saa nga gis ku naan sama amee ndam kenn du ma félicité te yow footballoo doo doo footballeur doo entraîneur euh, doo lenn fa tabarak la lu dul supporter da nga su ndam amee xaj ña sarax ba nga def fa tax wala wala wala wala wala loolu nag mujj nanoo dem ba yàq xelu nit ñëpp ba nga xam ne soo seetloo Pastef gi nit ñi gënoon a am si final bi saaru wax yooyu rek la ndax comme que wax nga ne danan gañe yàlla dogal ko fa tabarakala nga waxaat tamit yàlla dogal ko soo waxaatee ñëpp dañuy jàpp ne mën na noo fàtte ne yàlla yor ndogal yi sax danaa diw wax na rek te fekk te wallahi wa ma tasawuna illa an yasha allah sunu boroom moo yori coobare mooy tax nan koy ñaan nan koy ñaan tey nanguy dogalam nan koy ñaan tey nanguy dogalam nan gën a defaraat toogaay yi gën a jox yàlla li mu moom ndax xeer yi bari na lool fa tabarakalaa si si ñun ñuy wax ak ñin ñu ni tuddee ñaankat tey wallahi lu si baree baree bari noo ko yóbbe sunu dinaa di wax ne ñaan suñu ko tudde woon ñaan rek kenn duñu si dépensé waaye suñu bëggee ne ñun la noo ko yor wala noo ko man ba nuy nu nangu nu nuy wooyee maaman ba nuy nangu nuy wooyee maaman si ñenn ñi wala nu cat dugg nan na gën jox yàlla la mu moom fa tabarakalaa nanu gën a jox yàlla lam mu moom nu ngi félicité bu baax nag fa tabarakalaa sunu footballeur yi nax la leen war yépp ci jom ak fayda def nan ko ak sen sen entraîneur ak ñi leen encadré encadré ñëpp tabarakallah di gëna a masawi tu tanki. yi nga xamne sen seen kay won na lool wante yalla mo yore ndogalam yalla dogalon bi yag ne 2019 bi équipe bu ni wax dana def final ak senegal to sunu finalo alseri mo koy jël kenn mënu si woon daara mooy tax fa tabarak laa du kenn kenn ku tax tey coupe bi ñëwul ku dul borom bi dogalam la fa tabarak laa waaye yenn yu bëree bëree bëri bëri dañ koy xas def suñu xel ba mu yàq lu bëri sunu demee bay wax ne ay rawaxaana fubal ay rawaxaana dogal bu nu demee dem ba naan match bi nu passé match ñaana tax nu gañe loolu lu wér a wér la ñaan danay gañaloo nit waaye jom ak fulla ak fayda it fa tabarakalaa mooy lépp ak dogalu borom bi ndax lépp fa tabarakalaa si coobare yi borom bi la fa tabarakalaa kaddu yi lu si jumnu sante ko yàlla lu si safaanu nu koy jéggalu di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu wànde ak dogalu yàlla yéene na incha allah chaque altine ak sak alxemes wànde ak dogalu borom bi incha allah dinañ wettali kontaan ak yéen si Wadduha TV wasalaamaaleykum wa rahmatulah alhamdulilah.